بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصرف في الملك والملكوت الباقي الذي لا يفنى ولا يموت وصلى الله وسلم على سيد الخلق محمد خير البرايا وعلى آله وأصحابه ومن والاه waridallahi alqaalit xan jamihi almuminin ixwata alimaani walxaqida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen baal àq di ñaan sunu boroom mu baal nu dellu suwaat ci seen émission bu mag bile di tawjihatul islamiya ñu koy defee fii ci Kalab Africa TV eh, di ko ànd mbokk yu baax yi nga xam ni dañuy woo fu sori wax dëgg yàlla di rafetlu waxtaan wi di apprécier wax dëgg yàlla ñi ci nuyu VK mu ngi ci Amérique waaye am nañ itam suñu jigéen yu fa nekk Khadijatu Diallo New York la nekk ak boroom këram Ibrahima Diallo Mariama Bari Ibrahima Balde ñooñu dañoo xaw sakkan waa Amérique yi le di nu woo wax dëgg yàlla di apprécier waxtaan wi ndax ñu ngi koy soog a gis ñu nuyu waa fii ñu ñuy waxtaanee xale yi nga xam ne ci suba ba léegi ñuy kërti kërti wax dëgg yàlla ngir lu yewenal plateau bi ñu bëgg a fas yéene wax ak yéen nuyu sëñ dembaka ak papis waaye nuyu xale yi wax dëgg yàlla sonn nañu ci suba ba léegi yal na yàlla defar lépp barke Seydina Muhammad ñu dellusi nag tey waxtaanee benn góor ci diine lislaam sunu waxtaan passé ci jigéen la woon waaye tey ñu waxtaanee góor boo xam ni mën naa ne suñu yeboo sax ne moo couple am euh, góor googu mu ngi tudd Omar ibnul Xattab ñu waxtaanee duggam ci diine lislaam ak balaa moo dugg ci diine lislaam yenn melokaan la meloon suñu paree ci waxtaan wi kenn ku ne dana am loo ci jàngat Omar Makka la dëkk Xattab di baayam mu nekkoon ku ku dëgër nit ku dëgër nit koo xam ne doxam danga kaa ragal xoolam danga kaa ragal waxam danga kaa ragal léppam du lu nit ñeme boo ko gisee nii rek physiquement doo ko yeb moom Umar ibnul Xattaab jamono jahiliya mooy ca ñu réer ña nga xam ne lislaam amaguloon wala lislaam masu fi ñàkk sax ba bi yonent bi ñëwee te mu tombe jamono ak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa yonent bi magee na ko ñetti at moom omar ibnul xattaab mu mel ni kon tofo ak moroomam la ci sayduna muhammad bi yàlla yónnee yonent yàlla isa ba mu fégal joxe déclaration ne yonent yàlla muhammad dina ñëw intervalle ba xaw na gudd diggante fi Isa demee ak fi ñu yónnee yonent bi xaw na gudd tuuti ci la yonent bi nag judd ca Makka ca amal fiili amal fiili mooy at ma nga xame ni amoon na buur bu am doole bu ñu tuddee ab abraatul ahsam mu gis waa Makka am kaaba gi kaaba gi jox leen benn bayre boo xam ne benn réew amu ko abraha ni dafay toj kaaba gi tax màkk am bayre defar beneen kaaba ci dëkk ba mu dëkk muy xabasa muy Abyssinie ñu koy wax Éthiopie foofu la abraha dëkkoon ci Afrique gi na muy dem nag jël armée bu mag ngir dem toji kaaba gi am soldat yu dëgër am itam waruwaay yu dëgër ndax waruwaaye ay ñey la demal si kaaba gi pour toj si ko ba mu ñëwee ba jub màkka ñay ya ko doon yóbbu lànk ne du ñu dem màkka muy forcé di forcé foofu yàlla indi ay picc ñu dal ci koom sànni leen ay xeer xeer ya taal leen ñoom ñëpp ñu dee at moom ci la Seydina Muhammad juddu ba mu amee ñetti at nag après ca la Umar ibnul Xattaab mi ma bëgg waxtaanee ak yéen juddu looloo tax waxtaan wi ay tënk la mais dana am lu luñ ci mën a jànge Omar yéeféer la woon bu mag boo xam ne lépp lu ñuy wax mooy yàlla xeetu mooy yàlla booy xalaat rek daan na ko def la ca gën a rëy mooy naanum sàngara daf ko daan def Omar ibnul Xattaab te nag mooy ñaareelu xalifa ci yonent bi ah. foofu nit mën na ci jàng ne ndekete nit lu mu bon bon ak lu mu jàpp-jàpp ci lu bon bu jëkkee tuub def yitte mën na sell ndax mooy deuxième xalif bu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw abu bakrin saddiq omar dëgër lool ci biir màkka bi yonent bi tàmbalee di woote omar ibnul xataab bokkuloon ci rang wu waaye ci rang wu yi la bokkoon fa nekkoon bari na sax ay xale màkka yu bëggoon dugg ci diine waaye ñemewuñu woon dugg ci diine ndax naqadi deret bu Omar naqadi deret ak bañ bu mu bañ sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba benn bés waa màkka organisé nu ma ko mën a waxee benn baal bu mag ci biir màkka baal bu mag ñii ne tànn biir la sax ñii ne daal pom moo yaakaar ne xumb na rek ci Sénégal fii keroog bés boobu moo ko gën a rëy ku ne ànd ak sa couple ñëw ñu ànd ak seeni gel bal leen ma <laughs> waaw waaye booba man sa morom duma moo fi ne dëkk bi xumb màkk xumb am jullit ñoo xam ne fekkewuñu loolu ndax diine moo leen tënk ne yéen waroo leen baal fu ñuy fooyee waree leen fa dem ñoom ñu ànd ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi bal bi xumbee ba xumb am na benn xale bu jigéen saaru manekee la woon di servir sàngara si di ko jox xale yi pour ñu naan ndax bég ca la ko Umar gis nii ne xale bi pour kan la gel bi kan la àndal benn xale bu góor jóg ne ko man la sama gel la <laughs> Omar dal di bucc ci jaaseem jàpp ci doq xale bu góor boobu ne ko xale bi munoo ko geere ku am jaasi ju mel nii rek moo ko attan fase ko tout suite ma géré ko ah Omar a ngay xëccoo gel Omar a ngi xëccoo gel nag xale amul doole ne ko grand bàyyee naa la ko seereel <laughs> Omar commencé di ànd ak xale ba ñu toog ba ku ne laxal laxal mooy naan nañu ba bilimbaan ñu jékki-jékki am ku taxaw ne lu leen gën a naqadi ci mag benn jigéen la moo taxaw ne lu leen gën a naqadi ci màkka alastum bi rijal ndax dangeen dul góor yéen xale yu góor yi ndaw soosu ummu jamil la tudd yéen xam ngeen ko min ngeen ko dégg ngeen turam ba tàyyi moo doon jabaru abi lahab moom ndaw soosu ya ahla makka aw ya sababa makka alastum bi rijali ndax doo leen ay góor ñu ne ankañ ay góor lañu de mu ne leen léegi li ma gën a metti ci màkka mooy Muhammad bi commencé di am benn groupe di wax ne dafay doxal diine yàq see bi ah nit ñi nekkatuñu au diapason xale yaa ngi commencé di di di di julli di di di di wax laa ilaha la di ci teg turam loolu naqariwu leen xale yu góor yi xale yi ñëpp nekk ñun ñëpp la loolu naqari amuñu ci pexe mu tekki caq bi mu yoroon bu am valeur def ko nii ne caq bi ku rey Muhammad indi boppam fii ñu tuur ci sàngara ma jox la ko nga jox ko sa gel caq bu am valeur la wallaay ndeysaan caq bu am valeur dal di takkaat caqam ne bu ngeen dee góor jóg leen ci lu rey Muhammad lu ko mu ngoog Omar dal di jóg taxaw ne man man naa loolu man man naa ko bu kenn bouger yéen ñëpp toog leen jaru sax ngeen ciy sàkk man man naa ko rey man ayca Omar jóg na di chercher fan la Muhammad nekk ci biir Màkka di dox di dox ba mu yàgg mu dajak benn xale bu góor bu ñuy tuddee Nuaym nooy ma ne ko Omar foo jëm amul caaxaan rey Muhammad moo ma tax a jog lan la mu ne ko grand bàyyil sa xel mi ngay foye yow Muhammad lu tax nga bëgg ko rey mu ne ko diina ju bees ji mu indi mu ne ay et pourtant diina jooju sa sœur boo bokkal ndey ak baay ca la bokk jëkkëram aussi ca la bokk Saïd fatimatu bintu xattaab yéen a bokk ndey ak baay ci diina jooju la bokk jëkkëram said ca la bokk booy rey kay da ngay rey ñooñu ndax mbay ci sa wewu tànk mu ne xale bi danga ma bëgg ma sensé jaune pour Mouhamed raw soo ma naxee dama lay kill <laughs> soo ma naxee ma rey la jàpp ci doq xale bi fañ mu Omar moom naka jekk doole rek xale bi ne ko grand demal vérifier man fii lay taxaw ba nga gisal sa bopp Omar Sansé direction jëm kër Saïd mi denc sëram bi ñu tuddee Fatima bintu Xattab léegi Omar mu Sansé na direction fi mu jëmoon jëm na kër Saïd fi sëram di sëy bu ñu tuddee Fatima bintu Xattab dañoo bokk ndey ak baay bi mu yegsee fëgg bunt bi fëgg bu ñàkk yar bi ko Fatima séenee xam ne kii magam bu góor la te dof la daf ne ustaas muy xabaab wutal foo làqatu ba kii dem ma ne xabaab dal di dugg ñu ubbil ko salle de bain ba mu dugg fa dal di làqatu nooyi bu baax sax ñemewu ko Omar dal di egsi seen biir rek jasar toog ñoom ñu ne tekk moom mu ne tekk ñaar ñaar ñuy waxtaan ba mu egsee ñu noppi kon am na ci lu ñu nekkoon na ne dama ni nañ dem ci aali kalaj ji ngunum ngunum yi ma doon dégg ngeen di ko def ngunum ngunum yooyu anamu ñu ni ko déggoo dara mu ne amul problème dégg naa ne yéen da ngeen a tuub bokk ci diine Muhammad dégg naa da ngeen a tuub ah ñoom itam duñu ko weddi parce que ay jullit lañu duñu fen su ngeen tuubee tey laa leen di rey dal di yenu jëkkëru séeram bi yenu ko ba ci kaw duur ci suuf jàpp ci doq gi di ko def bës boobu topp ci altine bés boobu topp ci altine ñëppaa ko xam defe naa ay mbej la loo mu tudd talaata ah soxna si nekk sama kanam bu ñu ko defoon bu ñu ko defoon jëkkëram day réagir nga commencé bëgg a ñëw yëkkati waa ji toog ci sa dënnu jëkkër pour mu bàyyi sa jëkkër ak ni mu koy mbéjee foofu mu daal di gestu rek gis ne sërëm bi mooy bëgg a atte ak moo koy bëgg a atte euh, jëkkëram mu dal di mbéj séer bi te Umar loxo yi dafa dëgër bi mu ko mbéjee kanam gi yëpp commencé di nàcc mu wàcc nag jëkkër ji dal di xool nag deretu mbokk di excusé wu ndaw si nag jigéen nag bu bu jékkee ba nga xam ne xolam jeex na dafay jëngu ndaw si jóg ne ko ñoo tey ñun ñoo tey dugg nañu ci diine jooju luñ ci góobee nañ ko gar Omar commencé ndax nag sotti galas ci mbir yi xam ne kii jéngu na di ko xas nag di xas nag Omar en tant que jigéen ba Omar dal di toog ne ko jox ma feuille yi ma liir mu ne ko euh, feuille yi kenn du ko laal fekk fer nga waaw innamal mushrikuuna najasun yàlla moo ko wax ci alquran yéeféer du laal alquran inna hasihi sayfa la yamassuhu ila almutaharun tansilum min rabbil alamin doo ko laal mu ko man tilimuma sangu naa bi may ñëw mu ne ko hey sangum yéeféer la sangu bi nga xam ne moom nga war a def pour am droit ci téere bii loolu l'islam moo ko recommandé mu ne ko wan ma ne ñuy sango sang boobu pour ma mën a xool yéen ci li ngeen nekk wan ma ko mu ne saayit dugal ko ci toilet bi nga dicté ko ni ñuy sangoo set xam naa bokk yi nga xam ne ñooy faral di seetaan sangu set dafa am ay wuute rubama bu ñu fi dellu siwaate jéem ko jàngale pratiquement ndeysaan Saïd dugal ko ne ko raxasul mu raxasul xobbeekul xobbeeku mooy raxasal sa jumbox ba ci sa sa bi ak sa gannaaw ak ci kanam extra extra danaa jàngale fii incha allah sangu bi Omar def ko daal di solu ñëw toog sërëm bi jox ko poti polycop biñ doon jàng mu jis ca taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tasqa illa taskiratan liman yaxsha alqur'an nag commencé di ko dugg muy réciteel boppam ba mu yàgg mu sukk ci suuf ne daal wax dëgg dëgg dëgg dëgg wax ju gën a dëggu jii gisuma ko fenn wax ju gën a dëggu ji gisuma ko fenn ji wax a dëggu makka bi leen abu yonent bi ne ndax bu ma am bu ma neen le woon naaru góor yaa ngi fii seen kan gannaaw di leen attaqué da ngeen ma gëm dañu ne ko mosuñu fekke foo waxee lu dul dëgg yow dooy fen mu dal leen nag jox information wu maay profet bi nga xam ne maa mujj ci profet yi ñëpp ci ñëpp la ma yàlla yónni nit jinne ñëpp ci ñoom la ma yàlla yónni yónnent fu mos a jaar ay mbokkam lañ ko yónni man nag yónniwuñ ma kese ci samay mbokk waaye nit ñëpp rasulullahi ilaykum mu yéen wa ila naasi kaafatan ak ñëpp nag ni ñëpp tubaab yeeg ñu dul tubaab ak ñëpp rek maay seen yónnent keroog góor googu ñuy tuddee abila bokk ak euh, baayu yonent bi ndey ak baay moo saaga yonent bi ci kanam ñëpp nga ko tabban laka tabban laka firikat yëpp dañ koy yar ne tos kare jeewal na la mooy boog yàlla na nga dee ci misaal waaye saaga la bu kenn mënu ko nettali jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallaay ndeysaan ñu jékki-jékki waa màkk yépp quitté bàyyi foofu yonent bi ak saagaam bi ko pàppaam saaga ci kanam nit ñi ndeysaan yonent bi wàcce ñi bi yàlla ne ko maalaa fayul saaga bi mu la saaga di wax tabbat yada abi lahabin wa tabba maa axna anhu maaluhu wa maa kasaba sa yasla naaran saata lahab ma ne saar wi abi lahab loolu moo ci wàllam kon buñ na tabbat li muy tekki mooy yàqu na yedda abi lahabin adinaam ak alaxiraam mooy yedda mooy lekk tegtale ñaar wa tabba parce que addina bu yàqu yàlla nga koy indi maa aghna anhu maaluhu wa ma kasaba yàlla ne na ñetti yëpp ay biam lañu yàq naa leen mooy koom-koomam yàqu na kontam yàqu na la mu dencoon te réservé ko itam yàq naa ko kon addinaam yàqu na ba faaw ay otoom ak ay biam yëpp yàqu na kon ku yàlla defal lii ci sa kaw àddina sa àddina yàqu na yàlla ne àllaaxira bu yàqu bi nag mooy sa yasla naaran saata lahabin ëllëg dama koy dugal safara kon ba tey àllaaxira mi tam yàqu na àllaaxira ku fa jëm dugg safara sa àllaaxira yàqu na wa amraatuhu yàlla ne danaa ci boole soxnaam itam soxnaam itam danaa ko dugal safara ñu ne waaye soxna sulum ci doon yonent bi mu ni moo yoroon càq ba di ko teg prix pour ko rey yonent bi ba ca topp mooy da daan jël ay dég di ko teg ci yoon yi di sàcc dàllu yonent bi ngir dég jam yonent bi mooy xammaalatal xatab ka daan jël matt ya dég ya di ko teg ci yoon wi te fi jii di haa danaa takk ca loosam xablun benn corde min masadin bu ñu rawee safara ndax seenam boobule dama koy mujj soppi benn corde yeew ko moom ndaw suuf si ca digg safara jàpp naa ne bañ yonent bi kon amul sens te itam tabarkallaahu bari na lu ngeen mën a jàngee ci euh, waxtaan wi ci islaamu Omar nga xam ne lu ma tënk rek la mais lu nit bon bon bon ak lu nit mooy mooy yàlla boo ca jógee rek booy ñëw si yàlla ne la man duma ma gedd malaat kon loolu itam lañ ciy jàngee xale yi bu kenn maam ñun ñëpp ci lu ñu mën a ne te neexul suñu borom te ñu xamal ko suñu bopp nante ca jóg ci teel balaa ñu ca dee di fekk macha allah ko defee ñu ngi gërëm ñëpp ñi doon seetaan ak caméraman yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom itam sonn nañ ci pour lu leeral mbir yi ba nit ñi mën ko jëriñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.